riba nag maanaam mooy li xaraam ndaxte ci fecc ak musique lañ ko tabaxee nañu déglu ji waa ji kàddu démboom bi mu doon wax TFM ak kàddu bi nga xamante ni moom toog na ci TFM yan kàddu la yëkkati après yéen sénégalais yéenay ju TFM télé la boo xam ni ci ribaa lañ ko tabax loolu mooy dëgg man Imam Dramé maa ko wax boo ngeen dégloo ma argumenté ko ci fecc ak musique ci lañ ko tabax kon mënuñoo bëgg a tabax réew mi TFM taxaw fi di complot di ñu complot ba ba yàlla jox ñu nguur gi ñu continuer di ñu complot. VAR yéen tamit TFM maa ngi leen di nuyu. fii sama kër la. waaw sama frère <laughs> Chérif Dia. Uh-huh. ak nekk ci rédaction bi yëpp. alhamdulilah samiil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. maa ngi lay fay. di la sant ci occasion bi nga ñu may pour ñu jàkkaarloog Sénégalais kon ñoo déggandoo kàddu yi nga xamante ni waa ji yëkkati na ko nee TFM télé riba la. te suñu bëggee moo argumenté ci fecc ak musique lañ ko tabaxee est-ce que moom mën na indi firnde que ci fecc ak musique lañ ko tabaxee lu ko leer ni borom kër gi dafa dem wuti ay financement lu ko leer ni borom kër gi dafa wuti ay garantie lu ko leer ni borom kër gi nit a yëkkati xaalis jox ko mais moom assumé na que fecc ak musique lañ ko tabaxee moom moo ko assumé mu ne nag suñu bëggee mu argumenté ko nee lu ñu tabax réew mi te TFM nekk fi. nena rew mi munuñu ko tabax te TFM nek fi lu ko waral parce que TFM daf fi nek di complot man tay suma xamé ni bërëb bi riba lañ ko defere lu haram la lu yàlla bugul ma xamne munuñu tabax rew mi te loolu nek fi mu don lo xamanteni ñu ngi complot man suñ ma woyé ci kër googu duma fa dugg même waji mo dema tok ci kër gi di nuyu ay xaritam xamal ni ko fofu kërëm la damay laaj nak sénégalais est-ce que genre nit ñi lañu mëna tabaxé Sénégal wala c'est une question que je pose. à vous de me répondre c'est une une à commentaire. commentaire. <laughs>